waaw mouvement boobu je pense que ni euh, euh, mouvement MLK euh, ku ko ku ko xamul tamit dégg nga ko donc mouvement la boo xam ne dès les premières heures bi ñu arrêté Karim Wade en 2013 ci le mouvement bi juddu notamment benn 17 avril 2013 donc ci le mouvement bi juddu mouvement bi moo nekk le mouvement précurseur tey mën naa ni képp kuy créer mouvement tamit di jàppale Karim Wade MLK moom moo la inspiré ndax bi muy metti pour ñëw ci réalisation yi nga xam bi muy metti euh, la ñu nekk sur le terrain donc di xeexal Karim boobu metti woon trop ndax ñoo ngi soog a perdre le pouvoir en 2012 foo dugg ci réew mi boo tuddee Karim Wade sax li lay njëkk a wax mooy maanaam euh, wax ju ñagas lañ lay wax ndax boobu ñëpp defe woon nañ ni li nga xam ne euh, la ko nguuru Macky Sall teg mu nekk ay mensonges yoo xam ne tegul fenn sénégalais yi gëmoon nañ ko booba parce que fraîchement maanaam c'était frais maanaam ci ci mémoire sénégalais yi 2012 ak li fi xewoon événement yi fi xewoon donc lépp lu ñu tuumaaloon rek membre PDS rek rawatina Karim Wade rek sénégalais yi dañ koy gëm donc ñun moment boobu lañ la ñu jóg muy en 2013 donc gëm ni li nga xam ne la ñuy teg Karim Wade c'est de l'injustice li nga xam ne lañ ko teg du dëgg du yoon donc ci kaw loolu on a fait les 45 départements yi nga xam ne ñoo ne Sénégal yëpp dem nañ fa vraiment porter message yu Karim mooy lan liñ ko téye Euh, ay mbiri caaxaan la liñ ko téye c'est de l'injustice parce que Karim Wade parce que Macky Sall mi nga xam ne moo ko jël dugal ko ci kaso bi xam na bu baax Karim Wade te xam na ay ambition donc xam na ni Karim Wade dafa am ay ambition présidentielle te xam na ni tey Karim Wade rek moo ko fi mën a jëlee donc looloo tax mu teel ko téye dugal ko ci biir kaso bi donc message message boobu lañ doon divulguer dem nañ nag fu ne ci Sénégal dem nañ fa sax ba Gambie donc 56e sommet euh, bi nga xam ne. Euh, ñi nga xam ne ñooy ñooy xeex aax ak yel ak yelleefu doomu aadama bi nga xam ne moo amoon Banjul c'était en 2014 2015 dem nañ fa biñ fa demee aussi euh, yaa xam naa ni sax yëg ngeen information boobu jàpp nañ ñu Gambie tëj ñu fa pendant cinq jours donc loolu lépp ñun ñu defal ko Karim vraiment parce que gëmoon nañ ni euh, mbir mi mbir la moo xam ne Macky Sall mi nga xam ne moo ko def tegu ko fenn donc daf ko def ndax jaay doole ndax injustice ndax ambition présidentielle yi nga xam ne moom la Karim Wade am mais également faagaagal le parti démocratique sénégalais donc loolu la woon ba tey euh, en 2016 bi Karim Wade génnee tey MLK joué na ci mën naa ne 99 pour cent MLK moo ko joué tey ci libération Karim donc ndax maître ndax combat boobu ñun ñoo ko porter euh, non si libération la ñu mën a wax ndax détenu koo jël téye ko ci kaso bàyyi ko mu génn. da nga koo libéré maintenant nag condition yi ñu ko bàyyee ñoom rek ñoo ko xam ndax leen rek laa la ci mën a wax Macky Sall euh, yàkkamti woon na bàyyi Karim parce que Karim demoon na ba commencé am benn capital sympathie ci peuple sénégalais bi et je pense que ni sympathie boobu ba léegi nii dañul donc Macky Sall dafa tëjoon Karim pour neutraliser ko pour neutraliser le parti démocratique sénégal mais contraire bi moo am bi ko téyee donc capital sympathème dafa gën a yokku capital sympathie PDS dafa gën a yokku ay militants ay nit yoo xam ne mosuñu ànd ak PDS mosuñu mosuñu gëm Karim Wade ci wàllu politique ñoom ñoo tey ñëw nekk ñi ñuy wooye ay karimis donc loolu la dem ñu tegal ko ay rapport tegal ko euh, yi nga xam ne renseignement yi tegal nañ ko ko ci ci table am ñu ne ko kii boo ko libéré wul donc je pense que ni da nga patate la patate chaude la ci ay loxoom donc loolu na xëy na yéen du leen ko wax mais nu nous some des hommes politiques ñoo ngi ci terrain bi ñoo ngi am ay information donc tey mu bàyyi woon ko mais bàyyi boobu tey moo waral tey bi mu ko bàyyee mu daal koy exile daf ko exiler forcé maanaam wax ak le gouvernement qatarien ne leen du teg tànkam Sénégal tànk lii ak lii ak lii ak lii ak lii parce que tey loolu bu fekkoon amuloon Macky Sall bu fekkee moom leer na ko ni Karim Wade amul benn doole amul dara Karim bu demee Qatar du fa def sax un mois ñibbisiwaat pourquoi pas ndax yaakaar naa ni xam nga dafa am wax bu nit ñi di wax souvent dañ naan ay dévolution monarchique ay donn sa baay ainsi de suite ainsi de suite ma di la xamal ni képp koo gis ci àddina doom dafa sax ci xol tey man su ma nekkee ci mbir su ma sañoon sama doom day ñëw nekk sama wet ndax nag Ablaye Wade biir na fi lu ne même du temps de l' opposition bi mu nekkee opposition ba nu mu nekkee pouvoir ba nu mu ñàkkee nguur trahison yi fi jaar bëri na yéen en tant que journaliste je pense que ne am na loo xam ne duñu leen ko jàngal Abdoulaye Wade dafa subir ay trahison bi mu nekkee opposition bi mu nekkee pouvoir ak bi mu ñàkkee nguur rawatina nag bi mu ñàkkee nguur tey sur 35 mën na 35 euh, hommes ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Abdoulaye Wade amul kenn ci 35 yooyu amul kenn koo xam ne présentement. mi ngi ak le président Abdoulaye moo xam mu doon ministre wala mu doon DG amul kenn ku ci nekk par présentement ak le président Abdoulaye Wade donc ñoom ñëpp mën naa ne trahir nañ ko pour dem ànd ak Macky mais nag loolu mënoo ko dund nag ba pare di jël sa parti di ko jox ñoo xam ne tey bu ëllëgee il son prêts dem jaay la Macky Sall ah, mais Omar Sarr et sa bande Omar Sarr et sa bande bu demee tey ba sotti yéen yuuxu dinañ dina dina jub fuñ ko foogewul parce que man man tey dama jàpp ni ak li Omar Sarr def lépp ab fépp fu ñu jaar ak parti bi dañ doon baliser la voie à Macky moo xam fi ñu jaar yépp parce que sabotage Omar Sarr bi mu jëlee reenu parti bi ba léegi ci ay sabotage dëgg la non dëgg la cest à ñu nous sommes reconnaissants Omar Sarr Ablaye Wade teg na ko fi parce que Omar Sarr nit la ko xam ne bi ko Ablaye di koy daf ko gëmal ni amul benn ambition je n'ai aucune ambition par rapport a ce parti mais dem nañu ba ci biir parce que nag nguur aussi dafa am doole xam Macky Sall teg na ko loo xam ne attanu ko teg na ko non si teg na ko loo xam ne attanu ko et il était mu dem discuter ak Sall ba élection yi ñu génn boycott bi nga xam ne le parti démocratique sénégalais def loxo Omar Sarr génnu ci laa la wax élection législative yi ñu génn man fi ma dëkk boog Touba Mbàkke ñi nga xam ne lañ fa investir sabotage la parce que ay nit la yoo xam ne du ma ne liggéeyaluñu pour le parti bi de mais ay nit la yoo xam ne ñoom ñoo mujj a ñëw ci parti bi nit ñooñu tey lañ jël dugal lañ ci biir liste yi la preuve ñooñu xaaj bi ñëpp tey dem nañ tey APR ñoom ñëpp dem nañ tey APR député yoo xam ne député parti démocratique sénégalais lañ tey ñoom ñëpp tey dem nañu rejoindre APR tey loolu fotu kan la fotu Omar Sarr la et sa bande voilà ñoo ko def mënu ko woon xëy na bu njëkk gëmloo ne ne Ablaye Wade awma ambition mais dem nañu ba ci biir Macky Sall yor nguur yor yatam di dóore Macky Sall xàcc yaram donc bi mu ko xàccee nag ah mu ne ko garaawul donc bàyyi ñu toog waxtaan mais attends li la koy won mooy tey man su ma nee Ablaye Wade moo ma yónni euh, ci mbiru dialogue Ablaye Wade génn taxaw bind communiqué ne yónniwuma ko mais Abla Omar Sarr s'est entêté ne moom day dem ci dialogue bi par la force lan moo ne ci suuf mais y a anguille roche am na lu xew. waaw loolu xam nga loolu ku mu neex nga wax ko parce que dañ ne euh, kii euh, euh, le candidat bi nga xam ne moo nekk au pouvoir tey tey bu fekkee amul kenn ku jàkkaarloog moom ku ci mel ni parti démocratique sénégalais. jàkkaarloog moom tey Macky Sall mën na am deuxième mandat donc mais tey ñun dem nañu ba gis ni Macky Sall dafa exi exiler suñu candidat bañ ne Karim Wade du teg tànkam Sénégal mais ñun tey bu ñu demee tey soutenir Macky Sall jàppale ko mais ñun kon dafay mel ni ñun nous sommes en connivence avec Macky Sall. tey no non no non no non non non non mais xaaral. ngeen soutenir keneen. non non waaw non xaaral fa ñëw ñëw sa Seck moo fi nekk. sa Seck tey moom bu fekkoon bëgg na ku ko jàppale day def les démarches dem gisi ji Ablaye Wade comme ni ko ñu bëri defee defu ko donc kooku ñun du ñu tëb tëb di ko jàppale. te aussi nu nous sommes des libéraux ci des yeneen candidats yi amul benn candidat boo xam ne libéral la donc ñun euh, dañu bëgg a ak fi nga xam ne la ñu jëm dëgg la di nga ma ne peut-être. non li ngeen war a xool mooy intérêt Sénégal dëgg la mais nag nous sommes des libéro donc tey bu ñu jàppalewul libéral du ñu jàppale beneen candidat boo xam ne bokkul ak ñun idéologie c'est ça aussi loolu rek la waa je pense que ni yeesalaat boobu ci lañ nekk tey boo xoolee secrétariat bi euh, ñi ci ñi nga xam ne ñoo ko composé tey boo xoolee rek tête bi maanaam à part le président Abdoulaye Wade ki nga xam ne moo topp ci moom la ñu toftal ci moom muy Bara Gaye xale la jeune la boo xoolee tey a quatre-vingt-quinze pour cent secrétariat bi ñëpp ay xale lañu toftal nañ ci nag ay mag yoo xam ne mag yoo expérience lañu yoo xam ne tey li tax ñu toftal nañ ci mooy ñu ànd ak xale yi won leen yoon won leen ni fii ngeen di teg seen tànk ba fi nga xam ne lañ jëm ñu mën fa àgg en 2024 mooy lan mooy euh, euh, fexe ba la président Karim Meïssa Wade nekk euh, cinquième président de la République du Sénégal donc tey ci rajeunissement boobu parce que dama lay rappeler histoire je pense que ni yéen en tant que journaliste sax yéen a ma ko gën a xam donc le président Abdoulaye daf ko daan faral di wax dafa daan wax ni génération bi man su may dem man Abdoulaye Wade damay yóbbaale diw ak diw ak diw ak diw te su ma demee beneen génération bi ñëw mooy Macky Sall ak diw ak diw ak diw donc ñooñu dañoo war a dem beneen génération bu bees ñëw geneen beneen génération bu bees boobu nag Karim ci la bokk ak képp ku mel ni moom donc tey boo xoolee ñi nga xam ne la ñu dénk parti bi à 95 pour cent ay xale la parce que nag classe politique bi dañ ko war a rajeunir loolu moom mooy yoon donc xale yi am nañu xam-xam am nañu njàng bi am nañu lépp te tey bu ñu leen joxe ay ay responsabilité war nañu mener à bon port le parti mais également à bon port le Sénégal. Euh, waaw loolu moom xëy na mënuma laa wax somme exact mais nag wax naa la léegi sànq ne la. Euh, nous sommes des hommes politique lu ñu bëgg xam dañ koy xam information bu ñu bëgg am dañ koy am donc li ci kanam rawuli bët bis bu ñu paree dialogue bi bu ñu paree dialogue bi ñi nga xam ne ñoo doon weddi yëpp yàlla dina leen weer bu neex yàlla. lekk nañu xaalisu Macky Sall lekk nañu xaalisu Macky Sall pour détruire le parti démocratique sénégalais te finalité bi mooy lan bis bu ñu paree dialogue bi dañuy woote gouvernement dino dino. union nationale ñu dugal diw ak diw ak diw ak diw ak diw nañ dem ba ci kanam tuuti